en attendant comme euh, chaque jour dañuy dem euh, ci région yi tey nag ñu ngi jëm ndar euh, ndar nag tonton mag Pape Samba Thiam won leen ma carte bi ñu wàcc fa directement bu ñu fa coppeeloo ndar la vieille ville dañu fay fekk nag suñu correspondant permanent di Mohamed Nabi Silla Mohamed ñu ngi lay nuyu. ngi lay fay Pape Cheikh. naka suba si mbaa jàmm nga fanaane Euh, sant yàlla bu mat euh, li nga xamee ni àddina ci wàllu euh, suba si yeew nañ ci jàmm ak salaam ci dëkk boo xam ni biig nawetal na waaye daal mujjut taw ndax dafa am juste benn ngelaw rek bu ñëw indi ay niir mu sotti ak lëf ceeb ndox. soo mhm. xam ne daal bariwul Pape Cheikh. loolu daal Dakar biig démb day ngelaw na xeetu ngelaw loo xamante ni damaa mujjee jafandu. <laughs> <laughs> yaay fàttaliku jafandul jafandul tegal fii sa loxo. ngelaw biig bi de kenn mësul gis loolu mais comme ndar ngelaw na te tawul sant yàlla heureusement ba foofu dafa féex ah, ndax géej gi. waaw ndax géej gi géej goo xam ne sax euh, Pape Cheikh euh, daañu waxtaanee ay jafe-jafeem ci lël boo xam ni dana am euh, fileeg saa rek ci cornas mhm. ñuy waxtaanee lépp loo xam ne aju na ci wàllum jafe-jafe yoo xam ne nappkat yi ñoo ci jamonoy nawet gi nga xamee ni. Mhm. Euh, jën mooy loolu waaye itam euh, li ci ëpp solo ci waxtaan wi dina jàpp jëm ci wàllu licence de pêche yi nga xamee ni nappkatub Sénégal yi dañ ko doon faral di am ca Mauritanie. mu mhm. doon euh, loo xam ni dina tax nag ñu fàttali leen sart yi nga xame ni moom la ñu war a am ngir képp koo xam ne day war a mën a dem. nappi ci Mauritanie sartu ak yoon waaye ci wàllub napp kooku ba léegi li nga xam ne aj na ci wàllub jafe-jafe matériel de pêche mhm. jubbanti lépp loo xam ne dina ci wàllub euh, njëg yi ci wàllub essence yi waaye itam nappkat yi bëgg nañ ñu jàppale leen ci wàllub euh, koppa ngir ñu am jumtukaay koo xam ne dina tax seen liggéey gën a yomb Pape Cheikh euh, ci wàllub napp gisuñ ci jóge sax dañuy dem ci wàllub njiwu mm-hmm. njiwu nga xamee ni centre de production de semence bi nga xamee ni mi ngi ci njool ISRA di ko fa euh, taxawal mu doon loo xam ni dafa am solo ci wàllub jiw koo xam ni daanaka li leen nguur gi euh, sasoon ci wàllub jiw ci wàllub gerte dañ ko ful euh, ba am ci lu ëpp loolu ci wàllub ceeb itam daanaka dañ ko ful ba am ñaar fukki tonne ak juróom ci wàllub semence pré-base moo di semence yooyu jiw yi nga xamee ni maanaam dañ koy mën a ful ba ñaar ba ñetti yoon. baykat bi soo koy jot ñu ni daal ci wàllu vallée du fleuve Sénégal mën nañ ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu jiw meññeef boo xam ne réew mi da koy soxloo xam ngeen ni nag ci 2017 dañuy daal bëgg nañu egg si ci Sénégal moom boppam ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu jéggaani ceeb ñu bañ ko jéggaani di ko bay fii ci diwaanu pex gi chercheurs yi nag ñoom gis nañu bu baax a baax waa ISRA ni lu war a mën a nekk la waaye foog ñu jàppale leen gën leen jàppale ci wàllu jumtukaay ndax euh, li aju ci wàllu ndox mi doy na naaj bi mi ngi fii waaye itam suuf su doy mi ngi fii lenn rek itam bokk na ci gàllankoor yi moo di ñi nga xam ne ay technicien lañ di faral di dem ci wàllub àlltraite Abdou Aziz Mbaye bi nga xam ne moo di directeur centre de production bu ISRA boobu xam le ni ñu ci bari kenn remplacé wu leen mu doon personnel technicien yoo xam ne war nañ ko gën a mën a soxla ci bërëb bi Pape Cheikh. d'accord ñu ngi lay gërëm bu baax Mohamed Nabi Silla toute la journée mën nañ la déglu ci rajo bi RFM sinon ci internet bi www.igfm.sn portail boobu nga xam ne ñu ngi leen di digal ngeen am habitude di ko xool di nuyu waa Ndar yëpp di leen ñaanal bis bu neex euh, ci euh, euh, télévision Futur Média